yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyoo fii ci barab bu tedd bii di jumaay Tuuba ci barabu Cheikhul Xadim bii nga xam ni fii la nekk. di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal mboolem jullit yëpp ak xalif généraux yëpp nag toog ak imaamul akbar bu tedd bii di Serigne Afi Bousso di sëtub Serigne Afi Bousso moom Serigne Bousso bi feggoog ay rakkam ak njabootam ak ñi mu àndal di nekk ci barab bi di ko di ko wutu muy Serigne Abdoulahad Bousso mu Serigne Thierno Serigne Abdoulahad Bousso moom asta sëñ Abdou Lahad Bousso moom sëriñ Abdoul Moutalib ak sëriñ Bousso be sëñ Abdou Khadir buso communication bi ak mbooleem muxaddimaatul xidma gépp ñëw nag ci ndigalu sëriñ Abou Mouhamed xalifa Cheikh Mouhamadul Mamoun ak soxna May Kabir moom sëriñ Touba waaye nag ci kàddu sëriñ Basiru Xaadim Awa Ba mi nga xam ni dafa bokk ci muxaddimaatul xidma doon ci membre yàgg fonk mbokkam yi bokkoo leen ñoom tam ñu bokkoo ko muy liggéey ak ñoom nag ci lépp loo xamee ni day jëmale liggéey bi kanam di leen nuyu nag ci turu sëñ Moustapha mii rakkam ñu ànd ñoom tam ñu leen di nuyu ci turu murit bu dëkk Daaru Salaam taalibe sëñ Touba koo xam ni maamam àndoon na ak Serigne Touba sëñ Touba féetale ko maam Cheikh mu yor barab bu muy liggéey fii ci senegal bokk ci ñi doxal économie ci réew mi muy El Hadj Abdoulaye Dia. moom alhaji Omar ja ak soxna Astou Dia moom alhaji Ibrahima Dia mi nga xam ni sëriñ tubaa ko féetale woon ak boroom gaawaan lu ne defal na ko maam Cheikh Anta ci haddiya ak ci tarbiya ay doomu aadama yàlla dogal nag lépp lu mën ci lu baax di ko def ci lislaam rawatina fi mu bokk nag ci yoon wi ndax koo xam ni da ngay tudd sama maam bokk na ci seexi yoon wi gën a mag bokk na ci aj li ñu ajale woon Serigne Touba Makka àndoon ak maam Cheikh Anta ak sëñ Fallou ak Bakki Bousso sama maam bokkoon na ci kooku yaakaar naa du doon ab société ci actionnaire yi mag yi ma bokk kon nag loolu tax na moom ci yoon wi la bokk démb tey soog a dikk mu xam ko nag yàgg bokk ak Muxaddamatul Xidma lii muy liggéey ndax ñii moom ku leen fekk si rek sëñ Tuubaa nga fekk si euh, amul benn buntu buntu tëjal kenn waaye wutiwun dara nag ndax sëñ Tuubaa rek kay def moo leen di defal lépp képp koo xam ne ab jullit nga nag wala nga di taalibe xam ni liggéey bi loo ci def ñu def ñu. ñu defal la ko ci sëñ Tuubaa ñu ngi ubbi seeni bunt di la déglu El Hadj Abdoulaye Dia nag nekkul ni tey la ko tàmbali lépp luñ mës a yëkkati ñoom jàpp na ci lépp luñ mës a nekk jàpp na ci tey nag mu yónni ñu euh, ñu ànd ak kilifa yii waaye ci kàddug sëriñ Basiru Xaadim Awa Ba mu yónni ñu moom tam sëñ Bas ndax sëñ Ablaye sëñ Yaafe sëriñ Abou Mouhamed mii kilifaam mi ngi seere cant gu mu cant sëñ Bas Xaadim Awa Ba li tax mu koy sant nag mooy bijjanti bi ko sëñ bas di bijjanti dafa wax ni sëñe Abo dafa wax ni loolu de man du ma ko mënoon tamit xëy na waxtu wu nekk duma ma amee jot noonu ci wetam waaye sëñ bas nag xam na bu wér ni sëñ Xaadim Awa Ba ak sëñ Amdi Mbàkke benn lañ woon ba mu tudde ko doom ba xam sëñ Xaadim boobu sëñ bas juddoogul noonu noonu la koy waxee sëñe Abo ni ko nag euh, kii sama dooma ñaari yoon sama dooma ci sëñ Baar ak sëñ Modou waaye sama doom la ci diggante sëñ xaadim ak sëñ am di sama mat kon nag looloo waral wet gi nekk gi mu nekk ci wetu sëñ bas eh, ci Ablaay sëñ boo da cee bëgg lool kontaan ci lool sëñ bas tamit dajug réer amub reer lépp lu muy jox ab lépp lu muy wax Abdoulahi du yittey boppam war ngaa defal lii barki demb lii Masaalikul Jinaan man képp maa yóbbu fukki million yii mu indi fii loolu nag jëf la jëf joo xam ne nag Cheikh Ibra Fall nag daana wax naan wax dëgg jëf dëgg ko gën kon nag jëf dëgg moom moom la El Hadj Abdoulaye nekk kon nag sëñ Afe euh, yéen ñi nga xam ni euh, ku ne xam na fa leen Serigne Touba tegoon te ngeen wuutu barab bi ci yoonu murid yëpp fii euh, Serigne Bassa ngi sàkku ngeen ñaanal Abdoulaye donte waxtu wu nekk yéen a ngi koy ñaanal waaye ku mel ni moom nag dafa baax ci yoon wi baax ci lislaam ndax li muy defal alxuraan doy na sëkk 1995 la njëkk a def daaray alxuraan ca Daaru Salaam ñu bari fi ne. bi mu tàmbalee concours bii la lañ jàpp nii alxuraan quatre-vingt-quinze léegi mu mat fanweeri at ka njëkk a jànge ca daara ja ba mokkal daara la sampaat daaru muy Balla Gueye di jàngal gone yu bari wala sët sëñ gaawaan yu bari loolu njariñ képp doy na sëkk njariñ waaw yu mel noonu nag moo mat a feeñal ci nit ku baax waaw ba mu sampee daara ñaar fukki at ak ñett la ka fa njëkk a mokkal sampaat na daara daaru loolu moo mat a moo moo mat a wax ci barab yu mel nii mu boole ko jëf ji nag. Euh, loolu yaakaar naa ne kon dañuy ñaan yàlla na ko yàlla defal cat rek kon daal sëñ bi sëñ Moustapha mii tamit rakkam la rakki Abdoulaye la ak sëñ Cheikhouna mii ñu tuddee ko sëñ Cheikhouna am sëñ Blaat di caatum sëñ Xaadim ak sëñ Saliou Dieng mii sëñ Bas boole ñu ñoo moomoon kaddu gi waaye ñu cërale ñu ko ndax ni ñu demee ak sëriñ Bas demee kook Abdoulaye ndax léppam day suñu lépp ndax bari na ñoo xam ne suñu njaboot boro bari na ñoo xam ne suñuy rakk lañ tey jii ay doomi nijaayam mooy seen sëriñ <laughs> bari na suñ kër ñoo xam ne tey jii suñu waajur alaaji sëñ Jalla leen joxoon ni nijaayam doomi alaaji sëñ Jaay seen sëriñ kon moom suñu sëriñ sax la waaw ah, wëlbatiku di suñu mbokkum taalibe wëlbatiku di suñu xarit wëlbatiku nag di nit koo xam ni teraanga ji ko yàlla jox dafa dafa dañu réer xamub reer ah, am amub reer dégg na bu baax wa fi amwaalihim haqqun li saa'ili wal mahrum mboolem alalam saa'ili wal mahrum mi ci am wàllu yëpp jox na leen ci loolu nag ah, daju réer a tax mu man ko doon doomi soxnaa tax mu ko waaye baax tax mu man ko kon nag sëñ Afi ñu ngi koy sàkkul ci barab bii nga xam ne lu fi waay sàkku suñ borom defal la ko suñ borom du fi tase yaakaar mukk ngeen ñaanal ko suñ borom muusal ko ci cat ak groupe bi muy liggéeyal muy Sénico gépp ndax entreprise bu boo xam ne jël na jël na boppam jaxase kook yàlla kooku yàlla dina la tal yaakaar naa ne ku tal yàlla bokkut ak ku talul yàlla képp ku tal yàlla nag dimbal gi la yàlla di dimbali bokkut ak ku tal te moom fexe na ba entreprise am bii jaxase na kook yàlla waaw kon nag loolu rek am solo yàlla ko yàlla jàppale. ñu ngi leen di joxaat wàccuwaay baax sëñ Afe guddal gi daanaka matu ko sax ndax moom mbiram demewul nii waaye lu baax deesu ko nëbb dañoo toll jamono joo xam ne lu baax wane ko sëñ Abdou Lahad am na solo lool ndax bari na ñuy def lu baax te xamuñu nuñ koy defee bari na ñu def lu baax dañ ciy roy ba def lu baax waaye nag euh, suñ borom mi nga xam ne moo gën a leeri bët ñëpp yaakaar moo moo moo moo moo moo moo mën a gis lépp yaakaar naa ne jëfam ji gis na ko te dina ko nangul ndax fii ku fi indi sa jëf rek suñ borom nangu ko jërëjëf so sëñ Blaat sëñ Bas tamit mi ngi sant sëñ Blaat mi baax waxoon na ni lépp lu muy def da koy woo ndax day xaritam di mbokkam di ci jokkoo ak moom di ci coordonné ak moom ndax nit ki la defal benn benn temps ci euh, ci ci ci jotam soo dee am soo dee nit war nga ko sant gërëm ko euh, nee na mi ngi lay sant baax sëñ Blaat nee na nga xaritam nga dangeen ngeen di jokkoo ci lu bari di diisoo ci lu bari te moom sëñ Bas sëñ bi yàlla moo dogal xolam bi set maanaam nit la koo xam ni dafa bëgg mbokkam bëgg lu baax dina lijjanti nit koo xam ni sax du ko xam fekk naa ba tey nit di def lu baax mu ne ko bindal diw diw moom sax du xam ni sëñ Bass ko bind te loolu mooy mbokk dégg naa Serigne Touba nee na mbokk mooy ki lay ki lay sa lu ñaaw te di la feeñalal sa lu baax <laughs> ko kon ko kon moom mooy mbokk ah di bokk yow li mu yor kon nag Mbàkke ngeen ñaanal ko baax bu so waaw euh, nit la koo xam ne daal du fekke lu ñaaw ci yoon wi du ko fekk ci lislaam kon sëñ Abdou ceer Thierno aus billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sëriñ Moustapha ji ngi lay nuyu di la nuyu ci turu sëriñ Afiya Buso imaam mi nga xam ne moo jiita daayira Muxaddamatul ak ci turu rakkam yi mu toogal di bokk ci kilifay daayira bi mu sëriñ Abdul Ahad mu Abdul Mutalib ak sëriñ Abdul Ahad maam Asta ak doomam ji sëriñ Abdul Xaadir Buso di nuyu tamit ñi nga àndal sëriñ Cheikh Mbakke mu sëriñ Xaadim Awa sëriñ Cheikh Anta Samb ak euh, sëriñ Saliou Dieng sëriñ Xaadim Dieng di leen yóbbante nuyoo tamit ci sëriñ Basiiru Xaadim Awa ay kàddu yu jaar ci moom ba àgg ci sëriñ Abul Abu Mouhamed moom Cheikh Mouhamadul Mamoun ko sëriñ Cheikh Anta waxee léegi waaye nag jëm ci sëriñ Alxaaji Ablaye Dia ci jëf ji ju am solo ji nga xam ne eh, duñ ne guleet yàgg na ko def mu jëm si fii ci liggéeyu koor gi ngir fii nga xam ne mooy jumaa ji niñ fiy dundale weeru koor mbooloo mu bari di fi daje xam ne daanaka eh, suñuy xayma eh, limub koor gi yëpp li fiy daje ëpp na mat na ñaar fukki téeméeri junni nit ak juróom fukk ak ñeent loolu nag kon boo ko xoolee lu mat ñeenti junni nit dana fi daje par jour ngir ñëw di fi doge si loolu nag képp koo xam ne yàlla man loo na la ko ngay dàkk bëgg-bëggub sëriñ bi ak di dàkk lu baax dañuy dañuy xam ne soo fi indee jam nga hmm. euh, muy loo xam ne Sëriñ Afi mën naa seere jëf jooju muy jëf ju rafet joo xam ne yàgg na ko def euh, ni ko sëñ Seex Anta waxe léegi jaar gi mu jaar ci sëñ Basiiru Xaadim Awa Ba tamit dafa doon koo xam ne moom digganteem ak jumaa ji liggéey bi daf koo ñor lool wala lu baax sax ñor ko ci fépp rek ci yoon wi ndax fu nekk ma nga fa bëri na jëf yoo xam ne fii ci jumaa ji daayira bi daf koy bëgg eh, am na ci yoo xam ne man mii lañ koy wax am na ci yoo xam ne suñu Abdou Lahad maa wasamee am na ci yoo xam ne jokkoo na ci ak moom waaye bëri na ci yoo xam ne nag man mii daayira bi bëgg na ko jaar ci man ma jokkoo ci ak moom ma xam ci sawarte gum ci sawar lool li ci mujj mooy gàmm gi jàll gàmm dañoo toog fii di réunion ñu war a gàmm fii ñu xam ne ci nawet lañ nekk te jaaduwul gàmm gi moom lenn di ci wàññiku te war nañoo gàmm te dara du ci sikk biñ dajee def benn commission euh, ñu sas ñu ñu ñu créé benn commission ngir ñu seet nu ñuy def ba gàmm gi mën a mën a mucc ayib bi ma génnee rek moo woo ko téléphone wax ko ci saasa la ne ah loolu may ma tuuti may ma tuuti daal di woo xaritam Moustapha Saw wax ko mu yónnee ci saasa. waa Xelkom baas ñu indi baas boo xam ne ñu ngi ko luyee cinq millions cinq cent ci lañ gàmm ba ba bët set loolu kon jëf ju baax la waaw buñ ko defutoon waaw boo yeexee gàmm gis nga taw bi mu taw ci guddi gàmm gi te dara sikkul ci gàmm gi te dundal guddi gàmmu ni ko Sëñ Tuubaa fonke woon kon ku ca fexe ba protéger lu protéger gàmm googu loolu jooj jëf ah, yàlla bu Sëñ Tuubaa dana ko nangu lool duñ fàtte tamit caméra surveillance yi nga xam ne lu ko gën am sécurité ci ci li wër jumaa ji lu am solo la bi nga xamee ne daayira bi bëgg na ko tamit ñu wax ko mu waxtaan ci ak Alaaji Ablaye Jami muy ay million yu bëri mu financé ko yebal fi équipe ñu defar ko kenn xamul njariñ li nga xam ne mi ngi koy apporter jumaa loolu tamit jëf la joo xam ne duñ ko fàtte moom ci jëmmi boppam nag tamit xam ngeen ne saa su weer wuy jeex dana ñëw ànd ak ay bokkam indi jëf ju rëy rëy rëy def ko ci liggéey bi at mu jot daawa ci mujj mënuñoo lim daal yi nga xam ne euh, ay jëf la yoo xam ne moom mi ngi jaar ci moom rawatina nag jëf ji nga xam ne tey El Hadj Abdoulaye Dieye jëf na ko mu doon luy amal solo liggéey bi ak fi mu ñëwee ndax ci tàmbali bi doon na loo xam ne daal jëfi sëriñ jëf jëf la joo xam ne sëriñ Tuubaa lañ koy jëfal kon yàlla na ko ci yàlla fay euh, te ful ko euh, moom dafa bokk ci ñuy dëggal ci li sëriñ Tuubaa di wax malakanil quraan tamlikan yadum ndax waaw ah, xillun wa hibbun wa ndax bu fekkee ne euh, yàlla dogal na mu bokk ci njabootu Serigne bokk ci kàngam yi nga xam ne ñi ngi wane njàngaleem Serigne bi ñi ngi wane tamit Serigne bi ni ko suñu borom maye alxuraan ci créer loo xam ne tey mboolem buñ gisee Sénégal ay champion di fi génne di dem Europe di jël wala di dem ci àddina bi di jël médaille d'or ci wàllu njàngum alxuraan yaakaar naa ne loxom mi ngi ci biir bu baax a baax loolu nag euh, day wane Serigne Touba ni ko suñ borom faye rek ci ay ñoñam. kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ci turu sëriñ Afia te di ko ñaanal eh, suñu borom li muy def mu gën koo may kattan joo ne dana gën a jëf lu baax rek. yéen ñi nga xam ne tamit yéen a ñëw eh, muy sëñ Moustapha mii tamit mën nañoo seere ci at mu jot moom it dana yëkkati addiyam def ko ci ci ci ndogu yi mu jaar ci sëñ Abdou Lahad maam Assame ak yéen ñi fi ñëw yëpp mi sëñ Seex ant mi doon wax it moom it ni ko sëñ Afia waxee léegi dafa doon koo xam ne dafay bokk moom toujours man danaa koy seereel sax ci gars yi bu ñu koy mooy leen euh, ku mel si Cheikh Anta moom lim moo war di ñëw di wax ci jataay yi ndax kuñ tudd mën naa xam askanam te du ci nakk-nakal beneen bi su léeg-léeg su aajee indi aw bayit wala aaye te loolu it du yombut seen mbokk yooyu kon nag loolu <laughs> waaw loolu it tawfeexi sëñ bi la taw tawfeexi sëñ bi la ci joo ci ci maam Cheikh Anta kon daal sëñ Moustapha kaddu yi daal mu gudd te gàtt mooy kaddu yi cant la ak ñaan sunu borom nangu jëf ji te ful ko te may kàttan ñi nga xam ne ñoo ko jëf barke xaadim rasul xam naa lu ci euh, dëng rek ci ñun la waaye lu ci lu ci lu ci lu ci jub ci sëñ Afi mi ñu ko doon wax lool asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu